Euh, maa ngi nuyoo di ziar kenn ku ne ci turam ak santam di dellu si nar a waxtaan ak yéen euh, ci li ñu tudde bilan Macky Sall mooy li mu fi liggéey ba mu ñëwee ba tey bilan te ñi mu àndal dina ko jaay bëgg noo gëmal ne bilan bi rafet na rafet goo xam ne gii war naa tax ñu jox ko ñetteelu mandat ndax mu mën a àggal àggalib liggéeyam loolu lañ nu bëgg a gëmloo bilan Macky Sall li mu fi liggéey ba mu ñëwee ba tey rafetlu nañ ko bu baax a baax ñoom nee nañu tubaarkalla tubaarkalla bilan bi tax na war nañ ko jox ñetteelu mandat waaw ndax mu àggale liggéeyam bu rafet boobu naam liggéey na fi kay liggéey na fi liggéey na fi mun te ñàkk liggéey jigéen du xëy ñu jox ko dépense su 5000 francs mu toog ba mu bëccëg tegul dara tegul añ tegul reer mënut a liggéey na fi waaw waaye la mu liggéey nan la ko liggéey ak fan la ko liggéey ndax foofa la liggéey ba la mu jar ndax loola la war a jar boo ko méngalee liñ naan qualité ak rafetuwaayu liggéey bi rafetaayu liggéey ba ak la mu jar boo leen méngalee ndax lu yenu maanaa la ca yooyu laa bëgg a waxtaan ak sénégalais yi parce que ñii dañ noo teg teguñu nu fenn te buñ ci àggee danaa leen wan wax wax joo xam ne jii koo xam ne yàlla def na ci yow nga amum xel danga xam ne lii ma la wax dëgg la weddiwu ma ne def na waaye nan la defee ci loolu laa fas yéene waxtaan waaye balaa booba sénégalais yi dem yu am solo yu fi romb te duñ ci bàyyi xel duñ ci bàyyi bët yu am solo ci suñu réew mi léeg-léeg yu garaaw a garaaw daf ci am ñett yoo xam ne yi moom laa bëgg waxtaan ak yéen rapidement ci lu gaaw soog a nag ñëw ci bilan bi bu ko jot ji maye bu ko jot ji may wut ma dellusi ci ca vidéo bi ci topp euh, li ci njëkk dama ciy jaar rapidement rek xam ngeen ne OFNAC office national pour la lutte contre la fraude et la corruption ak kuréel la goo xam ne gii li tax ñu teg ko xeex ger ak njur wuruj ak njuuj njaaj yu demee noonu maanaam ni ñuy def daal ba sunu alal li réew mi nga xam dañ koo soxla feneen ay nit aakimoo ko ngir ñooñee bàyyi loola wala boo ku ko def bu ñu la jàppee nga delloo ko looloo tax pour ger bu fi jógewulut wàññiku pour wuruj bu fi jógewulut wàññiku pour pour njuuj njaaj bu fi jógewulut wàññiku looloo tax ñu teg of nag bañ ko tegee as soxna lañ fa njëkk a teg du du du ma tuddul xam ngeen mu tàmbali liggéey liggéey fa liggéey bu rafet a rafet a rafet of nag ni muy liggéeyee ah, ay nit dañuy nekk ci bërëb di fa liggéey gis ne liggéey ba lañ fay def kat lu ñaawa ñaaw la ña nga fay wuruj ña nga fay njunjaaj ña nga fay ger ña ngay saax saaxee alali réew mi ña ngay doxalin dox doxalin wu ñaawa ñaaw mu naqari leen te mënuñu ci dara ñu wut ay firnde ca loolee def ab dossier def ko ci enveloppe bu baax a baax tëj ko ñu tuddee ko dénonciation wala mën naa doon plainte mën naa doon kuy dénoncé ni lii lii la fay xew baaxul kee maanaam da koo naqari mu dénoncé plainte comme dafa fekkonte ni moom dañ koo tooñ def eh, tooñ tooñ ni ko effectivement loolu lay def mu fab loolee mu xam boole ci firnde dajale ko yépp teg ko ci taabalu kilifa gi nekk ca of nag bu ñëwee wax naa leen ko ay yoon yoon loola day am fu mu jaar day am fu mu jaar ba fu muy mujjee mooy assemblée générale de l'OFNAC na nga xam ne fukk ak ñaar a fa nekk yoo xam ne président de la moo leen nommé ci boppam ñooñu xam ngeen ni du ñu ànd mukk ñooñu xam ne du ñu mukk ak euh, euh, koo xam ne kii dañ koy defal dossier bu koy duut baaraam te muy doon ku jege président de la xam ngeen loola ñoom duñ ko def. munuñu ko sax ca ñoom lay mujjee bu wëree fépp mujjee ca ñoom ñu xool ña ëpp ñoom bu ñu xa seetee ne lii kat lu doy kimaan la ñu jox ndigal kilifa OFNAC ga président ba alors ne ko lii te balaa booba bu ko kilifa gi jotee ñu seet ko xam ne lii li ñu wax yenoon a maanaa lu jata gës jara gëstu la day def ordre de mission yónnee fay nit ñu mën a jàng ñu xam li ñuy def ñooñu bu ñu demee gëstoo gëstoo gëstoo ba gis ne waa jooju kat li mu doon dénoncé di ko naqarlu am na waaye sax am na lu ko fa ëpp bu ko defee ñu def seenu gëstu kookee ko waral nga xam ne moo fa jiitu ñu def procédure waxtaan ak moom ba nga xam ni bii léegi lañu war a xam lépp am nañ ko ñu boole ca lépp luy firnde luñ fa mën a am ñu boole ko ca defu dossier bu mag a mag a mag indi teg ko ci loxo kilifa ga bu ko defee moom muy jaarat benn bureau ñaari bureau ñetti bureau ku ca ne da joxe sa xalaat mujj nag ca assemblée général foofa fukk ak ñaar yoo xam ni mag Sall leen fal ñoo koy xool xool ko xoolaat ko bu ñu demee ba ñëpp ci ñoom ñett ñu ne bu ñaar ña ne ah. lii mbir yi kat doy na kiimaan kii kat la mu nu doon wax ku fi indi di ko naqarlu li ñu fi ji sax ëpp na ko bon kili ñu jox kilifa ga kilifa ko of nag ba kii dañuy def procédural ñoom ñëpp signé kii kat jar naa yóbbu ca procureur présidente fab dossier lam ca war a def lépp mu def ko dem teg ko ci table procureur of nag non lay def dossier du jaar ca président de la République ca table procureur lañ koy def teg directement comme procureur moom moo war a fab dossier bu dossier ba bu jàppee ne lañ ca wax lépp am na moo ko war a fab jox ko juge ñu woo ko ko atte ko bu bu defee xayul bu deful yoon doxal la war a doxal ci moom dossier yu mel noonu soxna sa fa njëkk di ku mën a liggéey teg na juróom ñetti rapport ca table procureur ak ñett yu pare yu muy waaj yóbbu waaye jotu ko yóbbu président de plus jël décret ne ko jëlee naa la fa le vingt cinq juillet deux mille seize ñetti at la fa def boo defee ñetti at li ngay liggéey bu ko neexee mu dolli la ñetti at nga def juróom-benn at mu jeex tàkk waaye bu ko neexul dala fay jële indi fa keneen ndaw su njëkk sa neexu ko ngir ñooñee mu duut baaraam ñu yónnee ñu seeti leen lañ leen waxal am ba léeg-léeg lañ leen waxal am na lu ko gën a jéggi dayoo président sax jéem na cay pexe xam na ne mais ndaw si di ko am faydaam fulaak fayda wéelub liggéeyam loola neexu ko le 25 juillet 2016 mu jële ko fa wuutale ko ak seneen soxna soo xam ne si magistrat la day àtte waaye dafa retraité waaw kooka def na ñetti at mu dolli laat ko ñetti at muy juróom-benn juróom-benn at jëlee na ko fa nag vingt 25 juillet bii nu passé remplacé ko wuutale ko kuñ naan basiru Guèye waaye ci diggante bi ñaari soxna yooyu teg nañ lu mat fanweeri dossier ak juróom ci table procureur de la République booba procureur de la République mooy basiru Guèye mii dégg ngeen sax amoon na xuloo bu ndaw bu mu fi xuloo nag soxna soosu wuute woon soxna su njëkk sa ka fa mujj maanaam nga xam ni attekat la moom attekat la parce que dafa bëggoon a woyofal benn dossier wala ñaar yu nekk foofa ndaw sa ne ko eh defal sa liggéey defal sa liggéey dossier bi ñu ko def xam nañ du duñu du ñu defal sa liggéey loolu la ko soxna su mujj sa mujj wax donc fanweer ak juróom mu teg ko fan laalu ca benn benn bu ko seetoon sax ne d'accord ma lii ngeen wax li ngeen wax lii ngeen wax fu fanweeri juróom yëpp baaxuñu xayrut waaye benn la ca laalul te man mi nga xam ne jaar naa of nag am na ca dossier yoo xam ne yi laf ca nekk jéggi na dayo ñañu duut baram bu ñu faboon dossier ba jox ko juge bu moom boppam mu àtte leen fanweer juróom yooyu ñu ci bare baree bari tey ji ña nga kaso ci palaasu Ablaye ci Pape Alé Niang ak ñoom Cheikh Oumar Diagne ak ñooñu dama ni fanweer ak juróomi dossier yi bu ko procureur de la république boobu Bassirou Guèye faboon jox ko attekat ab juge ne ko atte ko bu ko attee fanweer ak juróom ya la ca ëpp kaso lañ jëm dama ko parce que dama xam dossier laalu ca benn kookee la Ablaye Macky jël andi ko ci wetam bu ko defee da lay bëgg a neexal am na ku ko jiitu xam ngeen ko kañu nommé médiateur médiateur médiateur de la république mu indi ko ci wetam bërki démb moo njaay mu ne teg na ko ci bopp OFNAC waaw yéen ka nekk procureur de la république ñu tegal la fanweeri dossier ak juróom laaju laaloo ca benn dangay ngay ba weranteeg soxna sa fu mujj ci dossier yi benn nga ca laalu waaw ku mel noonu nga fab ko teg ko ci bopp OFNAC waaye sénégalais yi nag man sénégalais jaaxal na ma seetaan leen seen bopp Bassirou Gueye lu muy def ci boppu OFNAC fanweeri dossier yi mu wacc fee laalu leen waaye yan dossier lay defaat xanaat du ñu nekkaat di defi dossier rek di teg nekkaat di defi dossier rek dama ni dëgg dëgg Macky Sall wégunu Bassirou Gueye moomee ñu nar a fay xaalis bu bari ak fukki membre ya nga xam ne moo leen di nome ci décret moom moom Macky ak ña ca des ñoo xam ne ñii liggéey leen fa yóbbu ña ngay wër kilifa of nag ñu leen di fay xaalis bu baree bari at mu jot waaye mais boobu xaalis lu muy jëriñ Macky Sall nag ba dëgg dëgg nag xat la Bassirou Guèye ci kaw bopp of lan la fay def fanweer ak juróomi dossier yi ñu tegoon ci table muy procureur laalu ca benn nga fab ko teg bopp of nag lan la fay def waaye of nag nag dëgg dëgg dëgg monsieur le président de la bi ñu leen di def at mu jot mën naa dugg feneen tas ko amul njëriñ la nga ne woon da nga ko faat moo tax nga teg ko fa dara dara dara liggéey na liggéeyam ba mu sotti nga lank yaag sa procureur lu fa Bassirou Gueye di wuti Sénégal yi laaj naa leen ko Bassirou Gueye wutiwul dara of nag Bassirou Gueye munt non Sénégal ñoo nangu Bassirou Gueye lu mu motif nag loolu maa wax